feeling the sunshine Bau bau dunyo dara Bul geste bul fale Alles leven waarde Man doe je nergens door model

di la wax ne yaa ngi si biir rubrique euh, fësal bi fësal bi nag boo ko déggee à chaque fois dañuy daal di dem xool jeunes yi nga xam ne ay entrepreneuriat lañ ñu daal di leen andil euh, si suñu biir rubrique fës yéene amal ak ñoom ab waxtaan tey nag Rama euh, dañ lay bàyyi da nga nuyu tey mbokk internet yi nga xam ne ñu lay seetaan. ok merci sister maa ngi nuyu mbokk internet yëpp fi ñuy seetaan di jaajëfal ñëpp di leen wax ne man la Rama madame Guèye. Euh, borom chic et élégance by Ramsès fi ci Sancu Mbot Jure Rama est-ce que tay yombon na nga ubi boutique bu melni bu yanjé ni est-ce que client yi ñu ngi ñew di def li nga xamné mom moy achat ba yombul won yombul won franchement yombul mais bon lo bëgg gëm ko rek yalla mhm. dafa ci jappalé te li dafa nek lo xamné dama ko yag bëgg mhm. donc euh, comme man mom ñëpp xam nañ loolu damay dox ci sañse dama ko bëgg mhm. loolu moo ma njëkk poussé mhm. je l'ai fait par amour mhm. entrepreneuriat la entre j'entreprends mais aussi dama ko bëgg parce que lépp luy sañse dama ciy dox donc euh, loolu moo ma gën a motiver ma ni pourquoi pas ma entreprendre ci domaine bii nii domaine sañse yére dàll sac parfum aussi bàyyiwuma lolou maquillage aussi bàyyiwuma ko. donc di solol góor di solol jigen boutique bi jigéene na mais amna aussi pour góor ni wa donc euh, mun na wax né idée bi mu ngi ci man euh, depuis ma nek Maroc. parce que mhm. Maroc jangé euh bi may jang Maroc donc ku xam Maroc xam ne sañ si am na fa. Mhm, mhm donc si sañse laa ça yi laa doon dox après jàng chaque instant maa ngi woon si marché yi mhm. di xool lan moo nekk tendance di jënd di sol di jënd di sol bu mu yàgg mu tenté ma pourquoi pas samay copine ma yéene leen si di leen ko envoyé depuis le Sénégal mhm. su ma jëndee sañse mu rafet si man ma jënd envoyé samay copine jaay leen mhm. donc noonu la ma idée bi dikkee ma nekk Maroc di jënd bagage di envoyé fii ñuma koy jaayal. Mhm. est-ce que est-ce que est-ce que yomboon na nga nekk Maroc di envoyer fii pour ñu day jaayal. bon c'était pas c'était pas trop difficile. c'était pas trop difficile parce que comme amoon naa fa ay connaissances yoo xam ne par exemple bagage bi pour mu ñëw Sénégal. Mhm. du du woon metti ci man. Mhm. du woon metti ci man parce que amoon naa fa sama sama ay connaissances yoo xam te ne ci loolu lañ doon dox. boo jëndee sa bagage jox leen. ñu teg ko ci oto yi. Euh, bien vrai que dina durer ay jours. ñu tegal la ci oto yi indil la Sénégal. donc comme sama ay ay xarit lañu won woon doonul woon metti torop. doonul won metti loolu moo taxoon metti question bi ma lay laaj nii à chaque fois dama koy laaj sama invité. Mhm. ñaata nga nga nga démarré. parce que euh. des fois da ngay gis ko xam ne day yor euh, cinquante mille ne la mënu commencer business te alors que mën na nekk. si mën na nekk. Mhm. avec peu d'argent mën nga commencer business. Mhm parce que si je me rappelle bien man bima koy def Maroc. Mhm. sama euh, sama xaalis Bon, j'étais étudiante donc. Mhm. xaalis bi may envoyé pour may dundee fo <laughs> moom ngay jël desit bi lay jël. te donc ku xa ku nekk xam ne étudiante li ngay soxla dafa bari. donc li ma doon dese du bari très sincèrement li ma commencé moom bariwul. Mhm. vraiment bariwul peut-être fàtte naa bi exactement mais bariwul. bariwul que j'ai commencé avec mon père su ma ko envoyé dara mu rafet mu ne ma lii de am na diw bëgg na ko mbaxana mm-hmm. bi su ma déggee su ma déggee euh, bi ngay commencé jaay ci réseaux sociaux yi nga commencé balaa ngay am place bon voilà c'est ça vente en ligne la woon vente vente bo xamné ne aw place mhm. bobu sa vente en ligne demeewul ni mais aw ma place mhm. dama don jël sama bagage rek envoyé doon ma ko sax publier di nit ñi di ko gis peut-être bu ma ko doon publier autant kon heure bi dépassé na fi mais euh, instant bobu melul woon comme ni da ngay envoyé sa bagage rek sama papa bu solé wala sama benn copine sol ko ko gis né ma bëgg na ma diw bëgg na li mhm. ma envoyé waat ñoom. léegi yow lan ngay wax euh, jeune yi nga xamné ñu ngi def vente en ligne te yàkkamti am place ba mu jaral leen yenn yi. bon je ne suis pas d'accord avec euh, yàkkamti am place ba mu jaral la yenn yi mom mhm. pour man jaru ko fi. Mhm. nit ki li nga bëgg. boo si defee li nga si war a def yàlla daf lay jàppale. Mm-hmm. loolu laa gëm li nga si war a def def ko normalement yàlla moo lay jàppale. mu ñëw facilement. man lii waajuma ko sax boutique bii nii. Mm-hmm. ma ko dama doon jaayantu nii rek. Mm-hmm. après idée bi ñëw pourquoi pas ma ubbi boutique teg fi bagage yi et tout. donc ma am benn somme ma ne xaaral ma def ko ma laaj sama jëkkër conseil. mon encouragement. la m'a dit mhm. Au début, j'avais peur parce que mhm. je croyais que mort. mais très sincèrement, je ne sais pas si je suis maa ngi jaay peut-être ñoom ñoo jaay maa ngi jaay <laughs> <laughs> bu ñu gisee bagage yi nice na trop te ku gis ay marque marque yu yu yu yu comme Zahra Zahra ku ko gis xam ne ne du du du mhm. boo xam ne marque bu ndaw la mhm. euh, bëggoon nañ xam tey sa bagage yi fan lay jóge nag xale yaa ngay kaa si suuf waaw sama bagage comme comme ni ma ko waxee au bi mhm. Maroc d'abord ok parce que mooy sama base. du ma ko bàyyi. Mhm. Mhm. Maroc dama fay jëlee bagage. Mhm. Turquie Dubaï. Maroc Turquie Dubaï. moo tax boutique bi du bàyyi sax la ko sama gars yi tuddee waa koñ bi dañu naan fii mooy laal sa Dubaï. qualité laay jaay ragaluma ko aussi. ku fi dugg dama lay wax carrément li may jaay qualité la. su la jaralee. su la jaralul aussi amul problème. nga dem waaw su la jaralul amul problème mais. xam naa qualité bi may jaay ma parce mhm. que ay marque Zara Christian Dior yooyu bon du ay marque como ku ko xam-xam ne du mhm. ay marque como damay jaay marque xam naa léegi nag tey boo doon wax sa client yi lan nga leen di préparer waat ay bagage yu bees waaw loolu moom bëgg naa si ñëw bu baax a baax chic mhm. et euh, élégance mu ngi waaj lu lu doy waar lu doy waar lu doy waar lu doy waar ak Saint Valentin bi di ñëw Saint Valentin bi na gars yi ñëw maa ngi waaj lu graaw te ñoom bu ma leen ko waxee war nañ ko gëm parce que may naa leen fi trois jours yoo xamante ne mhm. euh, vraiment ñoom ñëpp nee nañ bëgg nañ trois jours de de de de kii mooy bi may def lancement boutique bi parce que boutique bi ubbi naa ko quelque temps door ko lancer donc bi may def lancement bi dama defaat trois jours dama defaale en même temps trois jours de vente privée mhm. donc vente privée bi gars yi gis nañ seen bopp toj naa 31 euh, décembre waaw dëgg la xale yi sañ-sañ <laughs> tey euh, rabo mu ngi mel ni euh, suñu rubrique euh, mu ngi bëgg a jeex mais balaa may daal di tëj dafa am question boo xam ne aussi toujours dama koy bëgg di ko laaj sama sama invité euh, lan nga xam si si wàllum entrepreneuriat yi nga xam ne jeunes yi ñu ngi koy def fi mu nekk nii comme ni ma la ko waxee woon sànq ku am cinquante mille am na ñoo xam ne suñu amee cinquante mille ñu ngi siy xalaat leneen mais am na ñoo xam ne suñu amee cinquante mille ñu ngi siy jéem nan la ñuy def ba mën a évoluer li nga xam ne moom mooy seen business tey boo ñu doon wax lan nga ñuy wax ci loolu. man ñooñu laa gëm ñi nga xamante ni dañuy am cinquante mille gëm ne cinquante mille yi

lii da nga siy génn da nga siy génn man loolu laa gëm soo gëmee ne lii da nga siy génn da siy génn parce que lii dama ko yàgg bëgg jaay dama ko yàgg bëgg mais boutique bi quand lu ma bett la ma bett la xaaroo ko woon daal xaaruma ko woon moo tax ma ne la yàlla boo bëggee dara nekk si daf la koy yomb la ok kontaan nañu wax ji rafet na euh, Rama tey ku la bëgg jot nan lay def pour jot la bu jot maa page Facebook. Mhm. Euh, Chic et élégance by Ramses page. Mhm. page Facebook. Mhm. numéro de téléphone euh, numéro 78. 166. 87. 31. 78 170 82 21. numéro bob moo nekk si page Facebook bi. d'accord moo nekk mooy ne numéro boutique bi quoi. ok mooy numéro boutique bi. ok mhm. dégg ngeen comme Rama ñu ko waxee Rama dañ lay bàyyi nga joxe sa dernier mot. waaw sama dernier mot maa leen di remercier waa BTV. Mhm. vraiment yéen def yéen a ngi def liggéey bu extraordinaire fii si Bargny. Mhm, kontaan nañ si yéen vraiment. Euh, di leen remercier encore une fois. parce que maa ngi gis liggéey bu rafet bi ngeen di def. Euh, je vais en profiter même pour euh, tuddaale sama sama sama sama sama partenaire officiel. Mhm. parce que da ngeen def ak émission récemment. Mhm. suivre naa ko muy Général Events. Général moo géré boutique bi déco lépp luy décoration si boutique bi devanture bi si biir et tout moom moo ko géré ba pare c'est un frère boo xam ne à chaque fois il me booste mm-hmm. di ma wax gëm ko dafay ñëw mm-hmm. donc li ngeen di def rafet na di fësal jeune baax yi nga xam ne dañuy entreprendre mm-hmm di leen encourager lii ça donne du courage. Mhm. donc euh, di leen ñaanal télé bi yàlla na nekk télé bu mag a mag a mag bu ñuy dégg fépp ci Sénégal. Mhm. ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. yàlla mën na ko yàlla na leen ko defal. merci beaucoup Amine

وحيد رب يري فخسلان فخسلان